salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di siyaare maa ngi leen di béggee maa ngi leen di jox seen wàccuwaay gars yi gox nag gox rek la te làmb làmb rek la te làmb lépp luy juxal sa gox rek da koy def gars yi comme fi mu nekk nii nag bébé Elton moom parcelle la représenté man pare naa pour bëreeg moom incha allahu rabbi man pare naa pour jàkkaarloog bébé Elton pare naa pour jàkkaarloog moom parce que parcelle la dëkk man géejawaay laa dëkk Kër Mbaye Fall laa dëkk moom parcelle la dëkk ku ne xam na ni nag lamb lamb la te bu nee Aziz Ndiaye ak Baye nañ indi seen i mbër te man mënuñu maa génnee ci ay mbëru Baye Ndiaye ak Aziz Ndiaye ku ne xam na ni boo tuddee Baye Ndiaye tudd Aziz Ndiaye da ngay tudd Bousse ku ne xam na ni boo tuddee Balla Gaye tudd Aziz Ndiaye da ngay tudd Bousse kon instant bi pare naa pour jàmmaar nag moom pare naa pour jàkkaarloo ak moom promoteur bu ko mën a tëgg nag amul ki amul kee jarul sax ngay jaar ci man jarul sax ngay wax ak man jarul sax nga may jox avance jëlal li nga war a jël jox ko ñu jàkkaarloo man ak moom bébé Elton pare naa pour bëreeg yow pare naa pour may la revanche pare naa pour suul la te du nee nga da ngay suulaate billaahi wallaahi taalaahi man maa jël samay initiative ne damay bëreeg bébé Elton parce que bébé Elton mii ngeen di gis muy lappi-lappi di wax nii démb la ñun ñoom tey soog a ñëw xam nañ ko bu baax a baax bébé Elton bu ma doon bëreeg moom dañuy takk samay bët barke alxuraanu karim takk samay loxo takk samay tànk ma tëdd te du ma mën a daan man maay wax ak yéen bébé Elton pare naa pour bëreeg yow avance foo ko gis jël ko promoteur bu ko bëgg contacté ma léegi léegi nii para naa pur bëreeg Elton ak bis bu mu mën a doon nag incha allah rabi diggante parcelle la ak géejawaay jaajëf.